waaw asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, gaa yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay voilà uh, dama ne taxaw seetlu taxaw seetlu laa wax taxaw seetlu uh, dafa am fu may tàmbalee après ma continuer ci li nga xam ne moom moo ñu ñor ñun ñëpp muy Sénégal Bougane Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany Bougane euh, leeralal sa bopp Bougane génnal nga setal sa bopp nga leeral sa bopp wala nga wax ñu sa pété te mu leer nag quoi grand parce que xam nga yenn saa ya quelque chose que vous n'avez pas compris yow ak benn waay boo xam ne moom it model la ci réseaux sociaux yi comme chaque jour day génn sol xaftaan bu bees temps yi ci ginnaaw coupe d'Afrique bi la daan laqatu waaye tuddee boppam homme politique xale la nag ndaw la waaye bugaan sa télé bi gis nañu ne ci senegal lépp luy ñaawtee fak tappale ki fen ak sos ci sa télé bi lañ koy jàllale gis nañu aussi borom Walfadjri bi niroog Ahmed Khalifa ñas amul lu mu niroog Sidi Lamine Niass parce que nag Sénégal dañuy waxante dëgg manqué wu ma respect nag voilà bëgguma yegg na fi waaye wa euh, borom wal fajiri mi niroog Ahmed Khalifa Niass pas Sidi Lamine Niass ndax Sidi Lamine macha allah dafa am foo xam ne foofu la féetewoon population bi y a des patrons de presse yoo xam ne yéen ñu bari am na lu ñu xam ñu bari ci yéen négocier na ñoog yéen am nañu jël am na ñoo xam ne ñu ngi waaj a jël pour ngeen yen ñëpp anticiper ay tappale Bazoum bañu ñu defee sondage yi mënul am quinze pour cent des des voix Bazoum Bassirou Diomaye Faye mi ngi am ci lu tolloog soixante quinze pour cent loolu ci sondage la bu leer Bassirou Diomaye fay mi ngi entre soixante onze ak soixante quinze pour cent au premier tour Bazoum manul am 15 pour cent waaye nee na dafa bëgg a def bu Ali Bongo bi parce que bu Ali Bongo bi laa ko bëgg a tuddee xam nga Macky Sall dafa sàcc élection yi 2019 waaye il avait au moins benn trentaine jëm 40 pour cent wax dëgg yàlla ak loo ko mën a waxal amoon na 30 jëm 40 pour cent mu sàcc ko def ko 58 pour cent Bazoum na 15 pour cent la am xam nga sénégalais yi. dafa am loo xam ne nit ñi xamuñu ko waaye doomu aadama da ngay bàyyi fooyee sa xel Bazoum quinze pour cent sax amu ko ci ay sondage yu mag maanaam c'est entre dix ak quinze pour cent Bassirou Diomaye mi ngi am entre soixante onze ak soixante quinze pour cent Bassirou Diomaye loolu la am ci sondage entre soixante onze ak soixante quinze pour cent loolu la Bassirou Diomaye am donc Bazoum nee na moom day fexe lépp lu mu man léegi comme dafa sàcc ay milliards luubal ay milliards yu bare bare da koy jël jënde ko ay patron de presse bugaan neew ma jënd nañ la de ndax wax day leer neew ma jënd nañ la waaye damay junju ne la génnal setal sa bopp tappale bi ngay def nii maanaam li wolof naan ngarale li ngay def nii wuruj waraj bi jaru ko c'est pas la peine c'est pas le moment accusé wu ma la dara nag ndax ñun ñëpp la ñu soxla ci géewu politique waaye gone nga gëm sa bopp loolu nga tuddee sa bopp gëm sa bopp gëmal sa bopp gëm sa bopp ça ne doit pas être un slogan déedéet gëmal sa bopp te nga taxaw assumer say responsabilités waaye Ousmane Sonko laay supporter nga nekk ci side bi ci wet gi di def loo xam ne méngoowul ak supporter loolu dafa jar a xoolaat xam nga tey ak lu ñu mën a wax xoolal ku mel ni Mimi Touré Marème Soda ndeysaan Marème Soda la jeune dame que si bokku kooku ma ne leen Marème Soda I like a lot a young lady smart koo xam ne vraiment dafa yàgg bëgg Ousmane Sonko waaye gaa yële ñoo ko fi njuuj njaajoon duut ko ba yóbbu ko ci waa aar xawma ma lan ba détourné woon ko mais elle est dans ses euh, you know dans son bon sens a smart young lady bright ñoom ñëpp Ousmane Sonko la ñu àndal Basirou Diomaye la ñu jox seeni carte Tata Aïda Mbodj suñu yaay ju baax ji par parloowul xoolul ne wala moom it mag la mi ngi jëm mi ngi ci politique waaye lépp mu teg ko ci yoon xam ne réew mi dañ ko bëgg a teg ci yoon mu ànd ak Diomaye néew ma ku ànd ak jomaay rek ku àndul ak jomaay rek yow baaxoo ndax Déthié Fall c'est il a son parti politique Cheikh Tidiane Dieye moom it ñëw na ànd na ak jomaay ñoom Maimouna buso ñeneen ak ñeneen bari nañu ñoom ñëpp ñëw nañu dëggal nañu seen bopp bugaan dëggalal sa bopp nga bàyyi tappale yi yi ngay def ni ay tappale la xam nga tun vous ne savez pas am na benn homme politique bu am solo bu ma waxal xam nga lan la ma wax femme politique mu ne ma man Sénégal laa gëm je te du ma commit suicide maanaam duma karu xaru di dem ànd ak parti politique boo xam ne nërmeelu nañu ba pare nërmeelu nañu dee nañu ba pare may xaru di dem yàq sama bopp loolu duma ko def donc Bougane come on man you been in this too euh, maanaam sëq-sëq bi dafa bari quoi leeralal sa bopp te te on te surveille comme du lait sur le feu billahi wallahi on te comme du lait sur le feu yéen ñëpp ñi yaakaar ne rëcc ngeen ak yéen ñi yaakaar ne yéen a ngi diil yéen ñi yaakaar ne yéen a ngi wuruj wala jak yéen ñëpp on vous surveille comme du lait sur le feu gars yi ma tàmbalee jaale naqar bi am tey Liberté 6 immeuble bi daanu je pense que ñun ñëpp ñoo ko gisandoo tey xol metti ci lool xol metti ci lool suñu xol yi di metti nos cœurs saignent nos cœurs saignent voilà nos cœurs saignent suñu xol yaa ngi metti ndeysaan suñu xol yaa ngi metti ndeysaan jërëjëf Chouaïbou mu euh, Chouaïbou Liberté 6 en face Walfadjri euh, benn immeuble moo fi daanu. en face Walfadjri jamono ji muy daan nag euh, min yu tegal daanaka ay nit yu néew. gannaaw bi nag bi la amee euh, sapor pompier ñëw nañu fees fi dell police ñëw nañu itamit ñi nga xam ni ñoom ñooy daal askan wi dëkk ci quartier bi yëpp ñëw nañu waaye nag li jaaxal ñëpp mooy ak li ñu fi nemmeeku ñetti nit lañ fi génneegul. muy benn liir ak euh, ndey ja ak euh, keneen ku jigéen lu may loolu nag euh, amul kenn koo xam ne ci waxtu wi génn nga jippi nag minuit ba mu tegalee ko si lëf ba léegi ba fi mu toll nii daanaka ni quatre heures du matin jot na sapeur ngi fi yéeg nañ xool nañ ci suuf samp nañ seen matériel waaye ba léegi mën mënuñoo génn benn doomu aadama ci biir kon nag loolu lañ mën a jàpp boobu fii daal xam naa bu fekkee ni voilà lii ñun ñoo ko gisandoo tey muy xol bu méttee méttee méttee méttee lii nag boo leen ko gisee ba léegi ci faay gouvernement la bokk maanaam gouvernement bu lajj la ndax immeuble ay immeuble dañu war a am ay inspection maanaam dañ leen war a inspecter immeuble dañ ko war di inspecter waaye boo demee ci dëkk yu sérieux dañ koy inspecter bu fekkee ne c'est pas habitable dañuy ne ñi fa dëkk da ngeen di war a génn ñu defar ñu defaraat ko ba incha allahu rabbi mu normal ba mu mën a passé lépp loo xam ne moom mooy euh, code immeuble yi après ñu bàyyi ay doomu adama dëkk ci dans le cas de ces immeubles au Sénégal et y en a ndax li ci bari ndeysaan sama mbokk saraxu lay sax ñoo koy moom waaye dafa nekk euh, lu daw yaram lu metti loo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund tey ndeysaan immeuble bi daanu ay nit yu bari ñàkk si seen bakkan parce que tamit gouvernement Sénégal jëlul matuwaay yi war même en cas de désastre naturel gouvernement Sénégal amul matukaay yi nga xam ne moom la war a am pour suñu ay sapeur pompier mën a ñëw dégagé li ñu tuddee débris pour mën a euh, sauver li nga xam ne moom mooy bakkan yi jot naa boobu tey message ak appel ci suñu sapeur pompier yi ak suñu agent de eaux et yu bari yu ma ci interpellé ñu ne ma grand li gën a metti ci réew mi loo xam ne war ngeen koo xam dealer yi xaalis bi nga xam ne dañ ko war a jël yëpp di ko def ci bànqaasu réew mi dañ koy jël séddoo ko seen diggante duñ ko ci def ba loolu moo waral mettit yeeg jafe-jafe yi nga xam ne moom mooy dal doomu aadama yi ba doomu aadama yu bari di ci ñàkk seen bakkan donc loolu ngeen gis nii tey mu xew Liberté 6 te bari na fu muy xew ci senegal bu Liberté 6 dafa siiw parce que choix yi bu mi nga fa woon mu filmer ko leeral ko waaye doomu aadama li ciy dee ci année bi ci Sénégal ci ay accident wu immeuble ak yeneen ak yeneen ak yeneen dafa bari ba jàggi dayoo te àdduna bi yëpp xam nañ ko donc loolu dama bëggoon ñëpp xam ko te ñu xam ne gouvernement Sénégal mooy problème bi du keneen amul keneen koo xam ne mën nga koo duut baaraam ku dul gouvernement Macky Sall bu bu lajj bi gouvernement Macky Sall bu perte bi nga xam ne defuñu seen liggéey ba vraiment doomu sénégalais yi di ñàkk seen bakkan ci situation yu mel nii donc dañu bëgg loolu la ñu bëggoon indi ko ci leeral ci mbirum immeuble boobu euh, gars yi démb tamit demoon nañu ci li nga xam ne moom mooy jongante bi ci Coupe d'Afrique coupe d'Afrique des nations des nations Sénégal moo doon favori favori by far maanaam nekkul woon favori bu gën a jege sax mooy favori bi gën a sori bi gën a kawe waaye ñun ñëpp gis nañu ni mu demee démb Sénégal dem na Côte d'Ivoire dóor na ko série de penalty cinq à quatre waaw série de penalty la ñu dóoree cinq à quatre loolu nag li ko waral euh, dinaa leen ko wax moo tax ma ne leen man dama bokk ci Sénégal je suis sénégalais entièrement man sénégalais laa entièrement ok je suis sénégalais donc dama am droit di wax ci mbiru Sénégal damay tàmbali par ne euh, El Hadj Diouf El Hadj Diouf El Hadj Diallo nee na Diallo la sant ah, moom moo ko waxoon ci benn télé nee na Diallo sant yaayu yaa santu yaayam la jël parce que defe naa papa ji reconnaître ko woon bi mu juddoo bi mu nekkee xale. donc El Hadj Ousseynou Diallo Diouf euh, dañ ko gisoon fii ci benn match ak Cameroun mu jël ay kaddu yu tegginewul mu dem yóbbu ko ci Samuel Eto'o héros nationalu Cameroun boobu nga xam ne indi na trophée boo xam ci Cameroun ba mu nekk maanaam. tey est-ce que moom amul sax ay statut Cameroun mu doon doomu aadama boo xam ne ci Cameroun c'est un modèle maanaam modèle la xam nga ku indi ñaata coupe ci réewam dem Europe gagné ay ballon li gagné ay ballon lële gagné ay bout d'or gagné gagné gagné gagné gagné il a gagné tous les trophées du monde que quelqu'un peut gagner pour emporter dans son pays maanaam bu ñu ne woon tey dañuy indi kenn jegeel ko sax Samuel Eto'o du El Hadj Diouf la ñuy tudd peut-être ay Sadio maane ak ñeneen mais El Hadj Diouf moom duñ ko ci tudd mu yëkkati ay kaddu yu tegginewul tuutal waa Cameroun ba keroog man mi en tant que sénégalais j'avais honte j'ai des amis j'ai des amis camerounais mais dañ ma woo ñu ne ñu ne ma mais votre gars là avec sa sale bouche là kii lan la leen indil Sénégal ma leen dara lu dul njaqare ak fen ak bon ak ñaaw làmmiñ lii da la indil ak xale bu jigéen bu mu yaakaar ne mën naa def ak yow mu séq ak yow waaye amul dara loo xam ne indi na ko ci Sénégal parce que ndam xam nga il faut ngeen comprendre am na benn borom xam-xam bu daan ne I almost got it you still didn't get it maanaam j'ai fay le recevoir tu tu n'as toujours pas reçu maanaam xaw naa ko daj dajuloo ko ba léegi xam nga xaw naa ko daj ak daj naa ko du benn am naa milliard ak xaw naa am milliard du benn ñun ñëpp on rêve d'être milliardaire ñii gént ci adduna bi être milliardaire bari na est-ce que ay milliardaire la ñu nekkuñu ko ñi gént ci àdduna bi nekk premier des choses bari na est-ce que nekk nañ ko déedéet donc bu leen ma sonal ak demoon na waajoon na déedéet dama bëgg xam ne dem na te yegg na mooy coupe d'Afrique benn lañ ci am coupe d'Afrique des nations benn lañ ci am te loolu ñoom Sadio Mané ñoo ñu ko indil te Sadio Mané sax wax dëgg yàlla moo dugal dernier tir waaye dafa am taxaw seetlu boo xam ne man dama ko def ci fédération football bu Sénégal dafa mel ni c'est l'association des prostituées du Sénégal ñu góor ñi bëgg nañu jigéen ñu jigéen ñi bëgg nañu góor bëgg nañu di jëndalante ay billets di dem daje ci ay réew di tëddante def ay affaire bëgg nañu promotion canapé bëgg nañu tappale bëgg nañu njuuj njaaj bëgg nañu wuruj ak waraj ñoom bu nit ñi di dem di liggéey di indi fulla ak fayda ñoom ñu ngi dem di tëddante xam ngeen ñaata sénégalais ñoo dem Côte d'Ivoire en first class xam ngeen ñaata jigéenu sénégalais ñoo dem Côte d'Ivoire kenn ku ne dangal sa pantalon ak prostitution bi yokk Côte d'Ivoire est-ce que xam ngeen ñaata jigéenu sénégalais dem Côte d'Ivoire yéen ñëpp pompe ay ween sol ay tiset yéegal góor jigéen ña nag ñu mel ni xaw ma bëgguma leen tudd ñu mel ni ñi ma bëgg la tudd di fecc fecc góor jigéen ah yeneen traître yi ñu tuddee seen bopp influenceur nekkoon fi démb ànd ak population bi jaay seen ngor dem ñu jox tuuti xaalis ñuy def seen bopp ay petits journalistes sur le pistes Sénégal ñaata kaalis ngeen dépensé pour dem ci Coupe d'Afrique bi vous avez dépensé combien d'argent vous avez dépensé combien de milliards pour aller dans cette CAN ñaata njaaloo moo am ci kaan bi combien d'hommes mariés est allé là avec leur copine ñaata njaaloo moo am ci kaan bi pourtant de pendant ce temps Aliou Cissé notre entraîneur jéggal leen ma Aliou Cissé l'entraîneur des Lions du Sénégal est-ce que xam ngeen ne juróom benn weer a ngi nii fayeekuwul ci équipe boo xam ne ñun ñoo mujjee jël coupe d'Afrique Aliou Cissé xam ngeen ne juróom benni weer mi ngi nii Aliou Cissé fayekuwul Aliou Cissé le lion de la Teranga Aliou Cissé Aliou Cissé l'entraîneur des lions de la Teranga est-ce que xam ngeen ne nee ñu juróom benni weer a ngi nii fayekul en tant wa xanaa ñu fay ko diggante dem ba tey ndax ay dóorkat lañu ndax bu ñu xamee ne adduna bi yëpp yëg nañ ne fayekuwul dañuy gaawantu fay ko pour man koo xas comprendre nga Aliou Cissé fayekuwul Coupe bi lan laa fa gis ay jigéen ay pompe ay ween ay Sénégal waaw ay ay influenceur way j'aime les joueurs way bravo mon équipe nationale je suis d'être sénégalais way way way voilà lii rek laa fa gis lan moo méngoo ci fulla ak fayda ak loolu les joueurs sénégalais je suis de vous wax dëgg yàlla ay ñoom Gana Gueye ay ñoom euh, maanaam euh, euh, Koulibaly ay ñoom Diallo ay ay ndaanaan ngeen nag wax dëgg yàlla vous avez fait de votre mieux mais qui est le ministre du sport du Sénégal xam ngeen kuy ministre sport du Sénégal Lat Diop la tudd xam ngeen laat Diop nit tey boo ko bëggee xam ci Sénégal xam nga loo koy ràññee mooy saaga ak menacé Ousmane Sonko un homme politique digne ku loxoom set Lat Diop loolu rek mooy liggéeyam ci Sénégal xam ngeen fan la jëree mérite ba ñu def ko ministre du sport mooy saaga nit ñi wax-wax bu ñaaw nekk benn doom yaraamu sàcc détournement de deniers publics boo xam ne kenn mënu koo layam-layame amul benn mérite ci Sénégal moom Lat kooku mooy ministre du sport du Sénégal naka ngeen yaakaare am ndam xam ngeen il faut ngeen xam ne lii moo tax ñuy xeex système système bu bon baaxul mënut a développer équipe mënta développer réew mënta développer dara Sénégal talent la ñu doon gagné du système bu baax talent la ñu doon gagné talent talent la ñu doon gagné man mi ba ba ba ñu bëggee président équipe nationale bu bees Madi la voté le gala là Madi je ne sais pas le gars Madi la man moom laa bëggoon ñu jël ki nekk génération foot parce que Augustin Senghor mi c'est un politicien déguisé un délinquant amaluñu Sénégal benn njariñ c'est des voyous ñoom ñëpp ay bandi lañu ba ñu daj te tant que équipe bi c'est dirigé par des délinquants man dem man Madi laa àndal la gars Madi la j'ai oublié son nom le gars Madi génération foot ñi nga xam ne ñoom ñoo développé woon ñoom Sadio maane ak ñoomin seen man kooku la àndal ndax kooku dañu gis résultat bu bari xale yi ngeen gis nii tey ñoom ñëpp ñu xarañ ci senegal génération foot la ñu génne ñoom ñoo tax ba senegal am ndam donc Sénégal talent bi moo ñu indil coupe du organisation bi organisation bi dara baaxu ci organisation bi ay makoro ay sàcc ay duulkat ay fenkat ay manipulateur ay truand ñoo fa ne ñoom ñëpp benn lañu te dinaa leen indil ay preuve ci fan yi di ñëw ndax tekkiwuñ dara bàyyi leen Aliou Cissé tranquille ngeen bàyyi joueur Sénégal yi tranquille parce que organisation bu maanaam équipe bi mën na gagné parce que am na talent mais organisation bi baaxul donc organisation bi nag baaxul entraîneur bu dul fayeeku entraîneur Sénégal dafa xiif Aliou Cissé amul xaalis te pourtant mi ngi indi résultat ngeen di jaay jombe jaaw di jëndal nit ñi ay ay billet first class <coughs> wax leen ma gaa yooyu tudd ketchup ñaari ketchup ñoo dem ñaari ketchup am na jaw ketchup am ketchup ñooñu ban mérite la ñu amal Sénégal di fecc góor di fecc di def ni sa awra di tas say tànk di wax ay waxi dof ñooñu ban mérite la ñu am ci Sénégal ngeen di jëndal nit ñi ay billet first class dem jëli ay woykat di leen tëddee di leen jox ñu ñuy woyal ci waraan ngeen bàyyi Queen mu way ndax au moins Queen moom yàgg nañ ko xamee woyal ñu dimbali leen nit ñi ay tappalekat ngeen ak ay dóorkat ak benn groupe vandar loolu mooy dëgg vous tous vous êtes vous êtes des vauriens ay bandi ngeen Aliou Cissé da ko war a respecter sobe bu bari nit mënu cee am ndam ngeen yor ab équipe di ko sobe di ko sobe di ko sobe yéen ah ngeen yàq équipe bi yëpp du Sadio Mané ndax du sobe moom bañ na ko ba gone gu ndaw la dem takki voilà saajo gone gu ndaw gu xamul dara la dem takki duggul ci seen banditisme yooyu te bari nañu ci équipe bi ndax ñoom joueurs yi ñu bari boo leen gisee ñoom Gana Gueye ak ñoom Kalidou Koulibaly ñoom c'est des hommes très propres ñooñu bugguñu ay affaire mooy yàlla Et je vous remercie les lions. Tête haute. yéen vous organisation bi moo bon ak El Hadj Diouf El Hadj Diouf moomu ngeen jël jaxase ci seen biir ku mu laal sobe laal na la El Hadj Ousseynou Diouf tekkiwul dara lu dul naan sàngara ak duul ak tëddee xale yu jigéen yi amul dara benn njëriñ ci Sénégal yàq na équipe ba les joueurs Les joueurs du Sénégal, vous êtes très bien. C'est la fédération qui ne vaut rien. La fédération sénégalaise de football ne vaut rien. Ne vaut rien. Je vous le dis tout suite. Fédération sénégalaise bu football amul benn njariñ fédération APR la exactement c'est pas une fédération de football c'est une fédération de l'APR voilà amalu leen ni benn njariñ vous êtes des vauriens voilà ay vauriens ngeen xam ngeen ne président bu bëggul lu baax kooku bëggul résultat bu baax fan yëpp ñoom moom lañ doon politiquer ku nekk jënd sa mayo Amadou Ba nga fële Khalifa Ababacar Sall nga fële yéen tappalekat yu mag yi yëpp ngeen ñëw taxaw waaw mon équipe mon équipe te gëmu leen équipe bi ndax ku gëm équipe bi xam nga ne Lat Diop warta nekk ministre du sport xam ngeen lool xam ngeen ne Augustin Senghor monsieur troisième mandat warta nekk président fédération football Madi Touré waa jooju moo waroon nekk président fédération bi parce que waa ji dafay indi ay résultats yu fiable yu nit mën a teg seen loxo Aliou Cissé ñu ngi lay jaajëfal équipe bu Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal voilà yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ci liggéey bu rafet voilà gagné ak perte ñoo nag xëy na yàlla lii la namoon pour ñu mën a defaraat fédération boobu te bu leen yàkkamti dinañ ko defar falaa jëm nag léegi nag jeunesse sénégalaise deux mille vingt quatre bëgg ngeen ñu defaral leen fédération sénégalaise football bu baax waaw laa gëm bëgg ngeen ñu defaral leen réew mu baax waaw laa gëm loolu nag soo ko bëggee dangay dem nga jëli sa carte d'identité nationale dangay dem nga jëli sa carte boo jëli jee sa carte wallaahi balaa midi ñun farankulaay loo lépp gars yi yéen ñi jëli jëli ngeen xam nañ ko ndax ñu bari ci yéen jëli ngeen seeni ay carte te ñu ngi koy rafetlu yéen a ngi daas fanaanal waaye yéen ñi des aussi ñu ngi leen di ñaan ngeen dem jëli seeni ay carte d'identité dem leen ngeen jëli seeni ay carte d'identité parce que ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci institution yi xam nañu ne on va battre campagne et on va gagner ces élections avant midi te loolu nag pour mu am il faut yéen ñëpp ngeen jëli seeni ay carte d'identité waxtaan bi neex na xeex bi neex na puus bi neex na wax ji neex na waaye vote mooy gagner ay élections ñoom ba ñu defee sondage basiru Diomaye fay nee naa leen mi ngi entre soixante onze ak soixante quinze pour cent 71 ak 75 pour cent loolu élection ñoom xam nañu ne buñ fa demee balaa midi mu faranku lay ñu ngi leen di dànkaafu yéen patron de presse yi jël avance ngeen yaakaar ne di ngeen dem di joxe ay résultats dinañu taal ndey seen télé taal seen ndey seen kër yi fekk leen fa nangam taan seen ndey xam leen ko boo leen yaakaaree Sénégal bi yoon di ngeen ko jël saax saaxe ko tappale ko njuuj njaaj ko wuruj waraj billaahi yéen a ngi nax seen bopp Mouhalim info laay tëjee Mouhalim info euh, góorgóorlul waay defe naa yow daara nga yor sax daara bu ma juumul ah daara information yi baax na lool waaye chiffre yooyu ngay joxe yenn saay bul ko nangu di indi parce que préfet yi dañuy jël doxu petit di ko dugal sa bopp bi di la wax loo xam ne c'est pas réel parce que yow xam nga ne carte d'identité yooyu ngay wax yow mu loolu xam nga de manta nekk ñun mënuñoo dem ay Louga di bàyyi ay 3000 nangam carte d'identité tëdd foofu benn place te gars yi jëliwuñu ko gars yi jëli nañu seen carte d'identité dañu bëgg a gëmloo nit ñi ne nit ñi jëliwuñu benn carte d'identité comme ça élection yi ñoom ñu jéem koo luubal ne voilà nit ñi ñoo voté wul déedéet nit ñi dinañu voté massivement jëli leen seen i ay carte d'identité yéen ñi ko jëli woon ñu sécuriser vote bi nag sécurise notre vote mooy ful de boo wotee ba pare nga sécuriser sa vote parce que ñoom ci loolu rek la ñu yaakaar Amadou Bazoum gamatul ne man naa gagner ay élections ci Sénégal il prépare un hold-up électoral qui ne va pas se ndax Sénégal xanaa ñaari gouvernement am fa wala bakkan yëpp rot soit y a y aura soit bakkan yëpp rot mais Amadou Bazoum xam na ne mënta gañe ay élection ci Sénégal waaye il est en train de faire tout corrompre quelques-uns les entour l'entourage de Moussa Fall et quelques autres pour ne moom day def hold-up électoral Amadou Bazoum amuloo juróomi nit nooy defee hold-up yaag sa juróomi candidat yaag sa juróomi nit yooyu la topp comment tu peux faire un hold-up électoral mënta nekk donc bu leen ñu fontoo voilà buleen ñu fonto bu leen ñu yàpp il faut savoir qu'on fas face voilà on fera fas ñu ngi leen di xaar nag ca koñ ba soriwul waaye bëgg naa sénégalais yi ngeen jëli seeni ay carte d'identité may jaajëfal Lamine Niass Lamine Niass yow la ñu war a jox commission de aller serge boo carte d'identité parce que moom ku jëliwul sa carte d'identité daf lay ñef <laughs> non damboon naa namoon na Yeah, yeah. man dama aw ma kayit juddu moo tax. yéen am tàggat bi maa ngi leen dee ba jeexale maa leen rey rek yéen man rek ci alal ji ngeen nekkee ne moo man man rek man rek fii nit ñi di kaas dëkk bi nga yéen a gën a bëri wax def vote yooyu rek kenn du vote ndaw ñi fii lañ tëdd seen kër di nelaw di ataay ba ay onze heures kenn du génn dem fu ci kara salaamaaleykum salaam. am salaam ah eh,

dana maa ko mën a ko maa ko dara. yaa ngi si yàq nga ko. ginnaaw boo amee carte da ngaa war a inscrire ginnaaw boo amee carte da ngaa war a inscrire mën a voté. kon nii yaa ngi koy jàppante ba deux mille vingt quatre ah du ma soppi du ma saay ku amul carte danaa la rey man rek. man dox dama génne léegi dëkk bi yoroo baay. soo ñoo dàq kaas ñoo gën a bëri wax dëkk sa vote jotee booy bi ñu ko nekk. gàllankoor sax amul. moom man. mbaa damaa ci dëkk bi ñu ngi ci kàllaamee. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Epo. ça va naka. ça va. d'accord yow. yow eh, eh. ah eh. yow yow. yow lan nga mën si bëri dëkk bi ah xam nga moom. amul xam ne amul dara dama amul dara. xam nga man maa nekk ci dëkk bi yaa am naa ba. mooy mooy amul international karante wala amoo karante laa lay. mais su ma amee karante yow yow lan moo tax ma koy tiisoo su ma amee amul amul wala amul. yow nit na lay amee bakket amul karante xam nga ne am naa bakket bu ma ñàngal waay ah loolu daal maa ngi koy yow kooku moom suuf bu ah xam nga lay mu tëdd kii sa xarit yow yaa ah, ngi sa xarit yow yaa ah, ah yaa am naa xarit bi ma doon wax ah. ay wala sa waaw.

ndeysaan lii moo taxoon ñu namm jeune bi Lamine Niass lii moo taxoon ñu namm ko il est très très très très fort en ce qu'il fait communication bu am solo sénégalais yéen ñëpp ngeen war a dem jëli seeni ay carte d'identité wote xam nga vote euh, du caaxaan élection du ay fo l'élection présidentielle c'est du sérieux Sénégal dañu bëgg mu changer il faut ñun ñu wane loolu ñun dañuy wane ne ñun ñoo bëgg changement voilà ñun ñoo bëgg changement Ousmane Sonko daan nañu ko wax mu ne bu ñu defee lu ñu war yëpp amaana en deux mille vingt quatre du ñu soxla battre campagne parce que xamoon na lii déjà moom il avait déjà senti que Bassirou Diomaye Faye ñoom walla moom Ousmane Sonko peut-être. heure bii du leen fekk ci biti Sonko xamoon na lii il le savait Sonko xamoon na ne ay bandi la ko seqal te xam na ne bandi du bàyyi nit voilà gars yi maa ngi leen di tàggu wa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu